gis na Ousmane Tonkara nena day jàppale Jamil légui damay laaj question lay poser politicien bu wor luñ koy wax kat bi maçon bu wor ñu jox la santé jambour ligéyo ko lan lañ lay wax triam bi kat bi voilà béykat bu wor luñ koy wax kat bi kat bu wor kat bi kat bu wor kat bi jaay kat bu ñu dig bu commande ta deful kat bi ouvrier bu bu bu wor wor workat bi wa legi serigne bu wor luñ koy wax doomu yonenté bu wor luñ koy wax luñ koy wax question la jamil bu woré don sëtu alaaji Malik lan lañ koy wax dañuy fi tasu est-ce que est-ce que est-ce que loolu laa di lan politicien bi mérité wul est-ce que mais jamil dafa mérité est-ce que jamil dafa jaay suñuy baat jamil dafa wor dafa signalé gauche jàddu droite workat la bu bon sax deug ko wax mu ne lay défendre kon yow Ousmane tonkara da ngay xex bo amé nga war ñu war nga parce que ñi nga doon demb yépp na nga too wax ak ñom dem organiser sa coalition toilette organisation toilette ah, ah, coalition toilette continuer leen ci ñun boorkat kat lañu top de sabadoor boo mën sol dañ koy wax famille bo mën bok dañ koy wax réew mi ñun dañoo bok ci gétt gi wara naan ci méw mi amuñu ku ñuy faral nak amul xajj ak boko rek bayil say morom wax ko bu fekkee da ngay toilette wutal poudre pastel crème pastelu defal lu la neex waaye bañu ñoom duñ sa morom bañu voilà fa nga nekk nekkuñu fa da ngaa soxla buñ la nee critim nga wut ñu la kii man buñ mën a am ba may dee sa taxi waxatan li ngay def bu ëllëgee xamuloo ko ma ngay décidé ne suba fii laay jëm wallahi bu bër setee yàlla changé sa programme complètement nga def leneen benn nga tal ko wala nga bañ koy tal kon sëriñ si nañ wax nit fi seen xam-xam yii ñuy woote du l'islam islam du woote ay xaybu imam islam du woote ay xaybu kon imam islam bu doon woote ay xaybu yonent yàlla Muhammad woote xaybu te mosu koy def ok euh, nañu nañu nañu wax nit ñi fi seen xam-xam yem sinon nit ñaa ngi leen di commencé te dara warul ko lu may politisé boo xam ne gëmul dara caadu la gi lu mu la mënta jox amoon nga ko maanaam sëriñ bi yàllaa ko fal imam may ma tuuti mm-hmm. sëriñ bi yàllaa ko nommé ku doo fooleeku koo xam ne tey lay doon maire wala mu doon ministre wala mu doon président bu cinq ans mu wàcc doonatul dara continuer fekk la nga doon sëriñ bàyyi la ngay doon sëriñ. yow li nga yor a gën. yow li nga yor a gën. ku yor li gën doo topp ñii nga xam ne tekki wuñ dara yaay ma. loolu sañ yu ma fii laa koy waxee te sañ naa koy wax ñu ngi may dégg ñoom ñëpp islam du woote ay xaybu nañ wax nit ñi fi seen xam-xam yem bañ a dugg ci domaine yàlla. kon lu ñëwagul leen mën ko. yàlla ko dugg ci domaine mu wéti la mais imam lay wax di lu lu ñëwagul kenn xamu ko yàlla ko xam et puis woote xaybut dedet yow nit ñi am nañ luy soxla ci diine ji xamaguñ ko te top la wax leen ko mais ñëw di woté xëy bu diwaay def nangam diwaay def nangam ana diw bu ñu dugg ci domaine sunu borom nañ jàpp ne ay nit lañ inama ana basharun mislukum yonent bi daf ko doon wax inama ana basharun mislukum yuha ilayya lima leen di wax moy nit la comme yéen bu alquran ñëwut nit la comme yéen nañ wan nit ñi ne leen ay nit lañ moo jàllu parce que façon yii mais baaxul ci l'islam ki xamul l'islam baaxul dañuy jàpp ne ñoom dañuy nax nit ñi rek mais li ñuy wax duy am kon yii ñuy def du l'islam yonent yàlla muhammad defe naa ko am l'islam ci moom nga ko jëlee te aaya alquran nee na law kuntu aalamul xayba waay yow ma du ma leen jàngal alquran sa waay du ma leen ko jàngal law kuntu aalamul xayba lastaksartu min al xayri wa ma masani suu yonent yàlla muhammad yàlla ne ko waxal nit ñi ne su fekkoon ne xamoon naa lii ñëw kon du ma yonenti bi mi génn aduna tay la na ben tay la na ben yëre kon ci ben jif yor ay kilo dugub yum manam yum lek lekk voilà na leer na billaahi kalaa ñuy naxati yéen boy yi fi ñëw ni kala ñu fi naxati dotul yomb ci yéen de aca léegi nag ñu dem ci yobante yi yobante yi yobante yi yobante yi yobante yi yobante yi assalamu alaykum yii ñi yóbbante àq la gis nga lii ma lay jox lii ma lay jox pour nga yóbbanteel ma ko buggan ngay daani ndax xam naa ne suma moo dee live daf may fekk ma liggéeyi ba du ma mën a dugg fayu en waaye dama lay ñaan ngir yàlla ma sama sama sama audio bi nga joxal ma ko buggaan ne ko man fayu naa xam nga lu tax may fayu dama bokk Pastef bokkoon ci ñu yàgg wax man bugaan gëmuma ko ndax xamna ni Macky Sall lay liggéey. salam ni rame tay tay ku dugg rek na nga laal nga xaxar bu yow doomee raam ab ngay doome xattaan doome xaram bi yow sa ndey daa amub sar yow bugaan sa nday do me xaram bi yow mi nga xamantene ab gewel nga di neub sa do doomee raam ji sa nday ab xattaan la sa bàyyi doonub ndar-ndar moy gewel bi imbécile xaram bi yow da nga xam sa la wax doomi karam gi da nga sandai ni sa ndey def ba jur jur la non la jigen ñi mel sa ndey nga xam tane ne góoroo xatam bu ne tëddee nako ba sa bay doga exi sa bay dog sabgo reconnaître doomi karam ju jigen bi nga doon nga xam nga ni ñi ñi sa ah yo imbécile nga rek doomi ram gi ah yo bi sex nga wuy len ma yo man dela de man borom watiir la borom yo balal ma sama polu mbalit bi mom lay def ni damay yobale mbalit mbalit lay andale de kuma kuma fi duulal nak di nga xam du man nak yobante ak la dégg mer neena ma nag mako yobante sama yobante bi na yegg kuma dulal nak lay bañ damay indi rek borom saret la mbalit ma la jëm mer bi neema joxalal ma sama toural ma sama mbalit mi damay tuuri ji nak kuma dulal nak lay bañ ñaar yep ngay boole doomi xaram jek sa taat yu bax yak mak Macky yam sa bobu reey xaram bi nga nan bo jakkalo wonon yow jigen ni sax jigen kessa rek bo jakkalo mu tega sa waxatu ma nga tok nga nan fi Sonko ay gune yu fi ne ñu mën a téegal sa ndey ba ngay xoolee benn bët jigéen ñu ne la ndanduma imbécile bi sa bu jëb ndey doomi xaram ji doomu kutumbaasaan bi nga doon xattaan bi nga doon maa la jox loolu te bu buñ jàkkaarloo nga dégg lu yées lu lu yées nii doomu saram ndeyam bi yow sa télévision bi nga xam ne sàcc rek nga fi nekke ah, eh, am na loo fi ubboon xawma nuñ koy woowee eh, am na loo fi ubboon jox nañ ñi ñu fay liggéey ñëpp danga leen a sàcc ñooñu ñëpp wax nañ audio ci ci dëkk bi doomi xaram ji sàcc xaram bi nga doon yoo danga koo liggéey yow li nga yor danga koo liggéey tey nga sàcc ko Ousmane Sonko moo la xañ jàmm te di nga dee di nga torox ndax Ousmane ko ay dàllam sax la gën doomu saram ndayam bi nga defee ne danga yow ngay doomi xaram ñàkk war ma ba bëgg dee yaa ngi nii mel na ku musul woon nekk ci ci euh, euh, Sidi Lamine Niass euh, télévision bi doomi xaram ji lu mu la dikkee yow de yaa xam ne beneen beneen gouvernement bu fi ne dina sa sa télé bi dina téegal ndeyam tëj ndax doo fay impo doomu saram ndeyam bi yaa ngi Youssou sa cottu ndey buggaan man maa la ko wax sa cottu ndey sa dëjëw ndey sa lëfal ndey doome xaraam ji sa bugg xam ne bu rëy lépp loo génne nga sa ndey bu yàgg bi sa turu yaay na bëggoon naa ko xam ca laay jaar ko rimbi rimbi doomu saram ndeyam bi nga doon xattaan bi nga doon maa la jox loolu imbécile nga naan di nga doxaan suñu ndey doxaanal sa ndey ba pare dangaa doxaanal sa ndey doxaan sa ndeyu ndey doxaanat sa ndeyu nday ndayaatu ndey. ay satu yóbbu naa la ci faañ. sama saram ndey bi sa dëjëw ndey doomi xaraam bi nga doon xattaanu xaraam rek sa bopp bi ngay xeesal doo rus sax imbécile bi tur rek ngay wut tur tur rek ngay wut doomeeraam nga gëmoo sa bopp nga daan gëm sa bopp yow da nga ko mubboo waaye yow gëmoo sa bopp imbécile nga doomi xaraam nga nii noonu imbécile lu xaraam bi nga doon ku bon nga ku yées nga tu ne te respectes même pas va te faire foutre imbécile bi nga doon yow ñu mel na yow boo yee yu mel na yow ñoo ñëw di di wut di di jaay jaay ju pour wut euh, wut buzz wala wut tur yow doo dara imbécile bi un abruti comme toi nga xam te ne clochard la clodo nga lépp nga doonee raam ji Sénégal ngay mën a nekk di ubbi sa gat gi di wax sa dëjëw ndey ba nga demee barki démb dagana dañ la doon yuuxoo imbécile sa cottu ndey buggaan yow bante la de mbalit mi tuur naa ko mer national bu bes pour les bojo bojo comme Bougane dani bismillah gay orchestre bi na commencer Bougane Dany sa xuuru ndey sa buunu mam sa dënnu bàjjan Bougane nyambi yee carotte se tuun ñambi se tuun concombre felu leen sa lëfal ndey dani sa du man de mustafa gay am nga fi yobante yow tamit. na nga joxe sama audio de djiji bo joxe wut sama audio na la mere trop parce que bugan ma fayu. me ram la na nga na nga na nga na nga dugalal de parce que damay liggéey suma suma ma wu ton naa deget deget même yobante yi sax pour ma andi ko dañ may menacer alu ji ji nak amu man la binte ba yang ci jamm ziar ça va bien wa sa live bi lay setan ni am na beno duggu di la wax ci mustapha gay nan la dina la jël ci information yi mom la la jox lu leer la la wax ki ñepp ko xam bergamo ñepp ko xam ram la jigolo la katu bon la day genn ko te dañ ko rapatrier won sax bay bi watal ko mu ñew koku lum la wax lu leer la te bis bu la yone information yi nga ko ak li mala wax dégg nga. benn ñun duñu waxantu ki ñu nekkoon bergamo xam nañ ko bu baax ram la katu bon la. ben la information ak li nga wax yeb ben la. ok jaajeuf nekkal ci jamm ya yobante rek ay yobante laay indi sama yoon na ci yobante lay indi haral Mustafa gay, haram andi la sa yobante ba para nak doga ko jàll. waaw alek mustafa gay defal mako video ni nga wacce ni pa bi non la beugé ngén defal ma ci photo bi ngén tax xaaral kon nak li ñu war mom ñun ñi nga xamné dañuy jiite jiite jiite dara ci l'islam moy nu dimbalé ko té japp jappalé ko. suñu liggéey yëpp nekk ci jéem koo dëgëral ci zahir ak ci baatin nañ ko ñaanal mu sax fii te dëgër jàppale ko waaye ñu jàppale ko ci bitti itam ànd ak ñi ànd ak moom sànnil ko carte loolu mooy li nga xam ne moo ñu war mu di cant xam nga cant euh, sant nit ak gërëm ko euh, duul wax nit boo ko gërëmee nga sant ko jëf lay doon jàngale alquran i'malu ala daawuda shukran sant googu amal la da ngay jëf kon nag loolu moom kon nag gis nañ ne euh, président Macky ba mu fi nekkee ba léegi dara yokkoowut ci njëg yi yi nga xam ne moom lañuy lekk du ceeb du diwlin du saabu voilà gis nga gis nga na man duma ci boole wax ku ma woo rek dama lay bloqué ba nit ñi pare xaaral xaar leen yi may leen ma tuuti li ma wax moom leer na ku xaaru jukki yi moom ku yàkkamti borom ndekki ku ko njëkk yeewu moom da ngay tëddaat boloke rek voilà voilà ba ma pare fu ma nekkati woon sax gis nga gis nga voilà kon nag li ñu war moom samte googu amal la da ngay jëf kon nag loolu moom kon nag gis nañ ne euh, président Macky ba mu fi nekkee ba léegi dara yokkoowut ci njëg yi yi nga xam ne moom lañuy lekk du ceeb du diwlin du saabu du suukar du meew ah, du luyaas ba ata ata pétrole mu di essence kilogramme gerte yokk na te it fi nekkoon jóge na fa ba léegi maa ngi xam ay nit yu denc seen bon ñu jàll ji ay seen gerte jox leen ay bon ba léegi kenn fayuñu leen waaye bi mag ki ñëwee ba léegi ku jaay rek ñu fay la kuy jaay sa gerte ñu fay la. voilà góor gi sa yóbbante ngi nii. defal ma ko vidéo nii nga wàccee nii vidéo nii. defal ma ko vidéo nii nga wàccee nii paa bi noonu laa bëggee ngeen defal ma ci photo bugaan ngeen tas ko bugaan li mu wax daf ma métti parce que man dama bokkoon ci ñi daan wax loolu. doomi xaram ji daf ñu gën nday cottu ndeyam. xam nga dimbali leen ma nga defal ma. defal ma ko vidéo nii nga wàccee nii paa bi noonu laa bëggee ngeen defal ma ci photo bugaan ngeen tas ko bugaan li mu wax daf ma métti parce que man dama bokkoon ci ñi daan wax loolu. doomi xaram ji daf gën nday cottu ndeyam xam nga dimbali leen ma nga defal ma ko vidéo comme nii. Lo lambat. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. ಬೊಬ್ಬುಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬರಿ ಪೇರ್ ಖಾರಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಯ್ಯಬ್ಬಂತೆ assalam defal ma ko vidéo nga wàccee nii paa bi noonu laa bëggee ngeen defal ma ci photo dugaan ngeen tas ko bugaan li ma parce que man dama ci gis nga defal ma ko vidéo nii nga wàccee nii paa bi noonu laa bëggee ngeen defal ma ci photo Bougane ngeen tas ko bugaat laa toog paa bi daal wax ba mu yàgg rek dagg wax ci defal ma ko vidéo nii nga wàcc ma ko vidéo nii nga wàccee nii paa bi noonu laa bëggee ngeen defal ma ci photo Bougane ngeen tas ko Bougane li mu wax daf ma métti parce que man dama bokkoon ci ñi daan wax loolu doome xaram ji daf ñu gën nday cottu ndayam ëmb ngay dimbali leen ma nga defal ma ko vidéo comme nii loolu laa bëgg kii tam maa ko wàcce doomi xaram ji paa bu mën a duut bi gis nga paa bi waagu ñaay la ma doon doxaan waagu ñaay daf maa fekk ma dem si benn benn takk moom moo doon jël si séet bi sama benn cousine doom ji lañ takkoon moom paa moo doon jël si séet bi yow daal ma ñëw toog euh, man mën naa ni sax maa mujjee ci ñoom bi muy commencé Moustapha Gueye ñu xajal ma ma daal di toog nag imam Moustapha Gueye gaay wax ba mu yàgg rek nag wax ci mu ne ma yow lii de noo tudd ma ma ma di ko déglu sama cousine daal di wax xam nga mbooloo la daal di ne diw la tudd daal di ñëw daal di jaar ci sama tur mu ne ma yow mii de doo moolaa na boo ma bëggee bàyyi ma ne ko ah, kenn bañul bàyyi bu baax di wax dëgg daal di laaj sama numéro ci biir nit ñi de sama cousine yi jox ko sama yow paa bi génn jàppaat sama loxo yóbbu ma ba ci otoom mun mën de dëgg yàlla mu néeg yi man neex nga ma ma ne ko ah bu dee euh, da ma bëgg a bàyyoo de may itam neex nga ma wax dëgg yàlla xam nga yow daal umigee ndekete paa bi doxaan ma la jógoon gis nga mu ne dafay def ay conférence euh, weeru koor mu ne dafay def ay kii. mais da ngay xool li euh, waaraate ci weeru koor bi xam nga comme imaam yi waaraate rek caaro yi du ma ko fàtte mukk paa bi xoolal otoom la yóbbante boobu mi ngi yoroon benn jëm si oto bi la yóbbante chauffeur mu jël si ma amoon na jaboog aussi Mermoz paa bi jël euh, oto bi ñëw jël si ma ma dem ba caaro yi affaire bi daf ko daan di commencé ay à partir de midi. yor yor dal la koy commencé ba 15 heures mu arrêté ci la ñëk dem ci ay ma dem 15 heures ma auto bi indiwaat ma pa bi dima jema jéem a doxal ci laa xamee woon benen xel tam mu ñuy wax Abdou Aziz Dieng ko tam imam la won xomo leen won sax mani mani pa bi dal mo ñak pe di ki ni mako warlo won ba pare mu mu wax ko xel doxal naan suma ko bëgg suma bëggé mu tak ma duma ko fatte mu euh, ki pa bi nu mu tudd pa gay imbécile bi tata temps yooyu mi ngi nekkoon télévision euh, RTS ak beneen paa bu gaañu ndeysaan di def lettre euh, lettre xaw ma nan nañ ko tuddee woon di ubbi lettre yi di di wax nit ñi seen xam-xam ku nekk di laaj sa question muy répondre c'est un imbécile ngeen di jaay bëgg a data rek bëgg a ba pare toog ba bu neex ngeen bëgg ñoo roof ay karo bala ngeen ñu ko roof ndax ngeen ñu daaw de waaye ren <laughs> ren marque su kumba ka fi ne du ngeen ñu nax de bu soobee yàlla bala ngeen ñuy nax ci waaraate ci Seydina Mouhamed bala ngeen ñuy nax ci Baye Niass bala ngeen ñuy nax ci Serigne Touba bala ngeen ñuy nax ci Alaaji Malik bala ngeen ñuy nax ci Baye lay dana melni ba sere bi jaaye mbam mi na nopp yi dem ñu nak yeen rek wax la wax rek ngeen di def defu leen fi dara seen doom yaangi de dee nangu leen ci wax fukki xale ak ñent ñu ray leen ngeen duggu ba biir palais munu leen ne Macky Sall defal justice pour xale yi ñu ray ngeen tok rek bëgg lank seen waxtaan continuer di nam ko seen i Fi ngami magati la la wax da ngeen di bayyi wenni fal force namb bi ngeen di bayyi neon na len sen gel yi lay wër di len luqati sen gel yi lay wër di len luqati payi ay bondi ngeen ay bondi ay càkka ngeen wala li ma ma ma ma jox len ben nari, ndar yi waa ndar yóbbante ndar li fa Marème Faye Sall def ñu doga ñew nak ubi liñ jaay da ngeen di jaay càkka rek aca kaay len dem rek fi pa bu fi cagatu rek dugal ruq ma ngi ci gel yi de gel yi lay wër pa bu fi yëkkati sangam waxo ci suñu intérêt muy lan gone yi dañoo war a naan ci bok. gi ci meew mi lañ bokk paa bu ko fi waxul bu lay boo nga xam ne sa jaar-jaar dina tegu ci kaw table jalu muus yi nga sul dinaa ko lu leer laa leen wax nag acca na leer asalaamaaleykum asalaamaaleykum Jiji maa ngi lay nuyu di la ziar yóbbante laa indi de bu ma kenn duulal la encouragé si seen bi ngi def voilà man dama leen di suivre chaque jour dama leen di suivre peut-être du ma commenter nag du ma commenter du ma wote voilà vraiment maa ngi leen di rafet quoi bon man bon dama amoon li may comme ça ñëpp jot si benn information bi ma amoon rek bon dégg naa sax atanatoon dégg naa keroog mu si wax dégg naa mu wax ci mbirum at toll na lépp lu mu wax deug la man sama yaay la wo sama yaay expliquer ma lepp il paraît que Marie Faye Sall kéro bu mu démé si Saint-Louis di appuyer son frère Mansour Faye Marie Faye Sall bu ngeen gisee wa Saint-Louis ñi woteel mag ñi fal falat Mansour Faye Marie Faye Sall daf leen corrompe ay milliards et milliards et milliards rek wacce il paraît man sama yaay mom expliquer lepp man nekuma Sénégal mais sama yaay laa woo ma expliqué ma lépp il paraît que ni Mansour Fa kii Marième fay Sall dafa bàyyi ba trois heures du matin mu def porte à porte. ku mer rek ma génne la ci biir dugg si kër yi. ku mer rek ma nekk trois millions ay terrain lii mooy liggéey Marième Faye kër gu nekk trois millions donc imaginez kër gu nekk trois trois millions.

mu topp si Elisabeth Diouf mosu ko def mu topp si madame Viviane Wade wasu ko def Marième Faye Sall mii nag bi ñuy coow naan sénégalaise la sénégalaise la ay ay c'est la première fois ñi am première dame sénégalaise moom moo def jëf ji ñaaw jëf ji ñaaw ji Marième Faye Sall moo ko def lii moo tax waa Ndar ñi fal Mansour Faye Marième Faye Sall daf leen koromp nii la demee affaire bi nii la demee beneen bi vidéo boobu ngeen gis muy circulé ñuy yuuxoo Mansour Faye